yoo xam ne ni ab xaalis la waaye nag du xaalis boo xam ne ni buñ war a jëfandikoo la ndax xaalis boobee dafa am ayib nañu ko war a itam defaree defare wuñ ko noonu fa mu war a jaar jaaru fa ba waral ña ko doon jël itam bëgg ca def naka sudul noon def ay def ko tu mbóosóor ñu teg leen loxo ñu ko teg loxo nag ñoo doon waa douane ba nekk foofee euh, kii di Abdoulaye Sinkare demoon seeti leen fan bu Tanaf exploité boole ci def filature lu tollook ay fan ngir mën a yegsi ci saisie bi muy ay billets noirs ci ay coupure dollar euro ak CFA loo xam ni buñ ko xayma war na toll ci juróomi milliards ñeenti nit tam jot nañ leen ci jàpp ñaar ñi dëkkuñu Sénégal. saisie boobu noonu dafay intervenir après saisie cocaïne bu ñu defoon à Mpac ak saisie euh, billets noirs yu ñu jàppoon foofu noonu tamit à Tanaf donc loolu dafay wone détermination euh, agent yi nekk direction régionale sud boo xam ne moom moo correspond ci Casamance naturelle kii suñu combat boo xam ne dañ koy def ki lu ñuy tuddee criminalité transnationale organisée euh, euh, moo tax ki tour directeur général des douanes ki tour DOD ak sama tour maa ngi félicité chef subdivision bu Kolda ak chef euh, de poste de Tanaf ak agent yi nekk ci poste boobu noonu ci liggéey bu rafet buñ def. Tanaf mu ngi bokk ci région bu Sédhiou am frontière nag ak Guinée-Bissau ak prise bi agent wu douane yu Tanaf yi wane nañ bu baax seen xarañ ngir mën a xeex menace bi nga xam ni day faagaagal économie. xaalis bu bon boobu noonu buñ ko dugalee dafay am ay répercussions ci euh, fonctionnement institution financière yi ki répercussions yooyu noonu loolu dafay euh, wàññi valeur xaalis bu baax bi. te buy wàññi valeur xaalis bu baax bi dafay yokk euh, euh, prix euh, denrée yi donc bu yokkee prix denrée yi dafay impacter nécessairement consommateur bi moo tax suñu kilifa yi dañuy jox ay instruction ay orientation ki domaine boobu noonu ñu gën a taxaw di combattre fléau boobu noonu bii nag mooy ñaareelu saisie bi nga xam ni def nañ ko ci ay billets noirs boobaak léegi ëppul ñaari weer Le poste des douanes de Tanaf dans la subdivision de Kolda a pu opérer cette saisie grâce à l'exploitation de renseignements et un travail de filature sur plusieurs jours. Des billets noirs en coupure de dollars, d'euros et de CFA d'une contre-valeur de 5 milliards de francs ont été saisis et quatre personnes, dont deux de nationalité étrangère, appréhendées dans une auberge à Goudomp. Cette saisie intervient après la saisie de 2 kilos de cocaïne à Oussouy et de billets noirs encore par euh, la même unité euh, d'une contre-valeur d'à peu près 900 millions. Cela atteste la détermination de l'ensemble du personnel des douanes sud qui euh, fait de cette lutte contre la criminalité transnationale organisée une priorité. Tanaf fait partie de la région de Sédiou et fait frontière avec la Guinée-Bissau. En réalisant cette prise, les agents des douanes ont fait preuve d'un grand professionnalisme face à cette grave menace pour l'économie. L'occasion pour nous de rappeler les effets pernicieux de, euh, du faux monnayage qui, dans un lot d'effets de néfastes, à baisser considérablement la valeur de la monnaie authentique, ce qui crée du coup une inflation, c'est-à-dire euh, une augmentation générale et durable du prix, impactant sur euh, euh, la capacité du consommateur à pouvoir faire face à certains défis. Cette saisie est la deuxième du genre réalisée par la même unité en l'espace de quatre mois.